comme politique yi ñuy wax sax souvent manifestation yi dañuy déclarer rek doo gis ñenn ñu bëri doo leen gis aussi ci devant bi ñenn ñu taxaw mais fan situation bii euh, ñu ñu dund ni ban taxawaay ngeen ci war a am aussi pour mën a lankal jiitu mi euh, li mu bëgg a def ngeen jàppee ko coup d'état non coup d'état la moom. Mhm. coup d'état constitutionnel la loolu moom. c'est le nom du leneen à la limite même mën nañu wax ni sax c'est un putsch. Mhm. parce que li ko ko dooleel mooy armée. xam nga putsch mooy nga force dara. Mhm. sukkandiku ci doole. ok te loolu moo am keroog assemblée nationale la preuve ay gendarme ñoo génnee ay député. ay pour jàllale seen. Mhm, image bu ñaaw mhm. la preuve dëkk bi yëpp dañ ko quadriller pour tere askan wi ñu exercer seen droit de résistance pour juste wax ne d'accord ñu. en 2011 même assemblée nationale bi mu bëggee voter le quart bloquant sénégalais dañu ñëw taxaw. ñu may leen ko mais là. <laughs> dañ def y avait l'armée mhm. la gendarmerie d'or et puis yi dam leen di sax jéggalu mhm. parce que man ak ñu bare ci ñun dañu leen di léelée foog nii dañuy nelaw léelée sax dañuy dañuy fàtte ñun ni sénégalais yi lu ñu yëg ñoom yëg nañu lu toll noonu mhm. wala lu ko ëpp léeg di leen sonj sax dañuy dem ba dañuy ñun dañuy xataraayu naan leen jóg leen yeewu leen taxaw leen man def naa ko keroog. ndax dama dem assemblée nationale ñu repoussé ma. Mm-hmm. ma circulé gis ne sénégalais yi nekk ñu fi ba ma jàpp ni sénégalais yi dañoo. lâché wala dañoo xamul liy joué wu. Mm-hmm. ndekete ak ñoo ko xam. xam nga respect ak ku la jéppi du benn. Mm-hmm. léeg-léeg nit ne ci kër nit jéppi ko ma du wax ak moom sénégalais ci seen biir kër yi dañoo jéppi doxalin bi président Macky Sall di def. parce que le lendemain dama taseeg ay nit ñu ne ma dégg nañ la démb ñu ne ma waaye xoolal lu mu ko jaral hmm. lu mu bëgg nit ñi génn mu rey leen xale bu jigéen mu ma wax loolu mu ne ma président Macky dafa bëgg ñu génn mu rey ñu comme nu ñu defee woon 2000 ci mois de juin bi nit ñi rek ñooy perte hmm. yàlla dina ñu àtte ak moom li mu ñu def nii kër goo dugg loolu lañ lay wax li mu def dafa ñaaw wante du ko jig yàlla dinañu àtte ak moom peuple hmm. boobu la ñu am tamit c'est pas parce que dañu résigné. c'est pas parce que nekkul ay patriotes yàlla nañu àtteeg moom aussi. waaw xam nga <laughs> taxawaay du taxawaay rek ne il ne faut pas hmm. penser que sénégalais yi. Hmm. seen xol fëttul. Hmm. loolu c'est la majorité de sénégalais. te d'accord naa ci ak ñoom itam. parce que dund bi dafa metti du ñëpp ñoo mën a dem au front du ñëpp ñoo mën a xeex ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñemewuñu sénégalais ñemewuñu. bu ñu ñeme li leen classe politique bi teg 1960 ba léegi du leen ko teg di dund ci seen barke li mu wax léegi ñu jox la mandat Ababacar wax na ko léegi ñu jox la mandat jox la doole ne la doxalal ngiy jël ay suuf di jël alalu askan wi askan gi di ñàkk jàngaloo leen fajoo leen joxoo leen ni kër joxoo leen ni xëy kenn ku nekk di taaba taaba ci boppam mm-hmm. nga yor état ñoom ñu jàpp ne amul problème ñoom nañ nañ am fu ñu xëy rek bu ñu nalee taabal nga dëgër piir bu ñu wutee marché nga teggi bu ñu defee wut ci géej nga jaay euh, euh, euh, licence du ñu am géej ñu immigré dee ci àll bi. Mhm. tëj leen ci camp yi lépp ñoom ñu ngi lay daw rek. ok askan woowu la am. dañ koy sant yàlla parce que bëgg nañu leen ndax loolu lañ am. Mhm. mënuñu leen def lu dul bëgg leen. Mhm. te ñu leen wax leneen. changer leen yàlla bu ñu changer parce que c'est ce peuple là qu'on a. muy la spécialité sénégalaise. moo tax meluñu ni yeneen dëkk yi. donc loolu. on a un peuple très pacifique aussi peuple pacifique. Mm-hmm. qui aime la paix ay nitu jàmm lañu. Mm-hmm. nit day dëkk ak nit ci kër sax mu tooñ ko mu xam ne moo ko tooñ mu ne bàyyi naa la ak mm-hmm. yàlla. Sénégal la am mais kon daal bàyyi naa la ak yàlla ngeen toll fa ngeen toll aussi quoi Sénégal la <laughs> parce que aussi mais may mën a aussi situation bi du situation est-ce que bàyyi naa la ak yàlla fa ngeen fa ngeen toll lay ñëw loolu c'est la majorité des Sénégalais te maa ngi koy rafetlu malgré que de temps naa ñu def beneen taxawaay mais ba tey nangu naa. ok parce que on est dix-huit millions. Mm-hmm. mais xam nga lu tax du ñu nangoo loolu tamit dañuy nangul ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ay leader lañu. Mm-hmm. Thierno mi bokk ci ma rafetlu taxawaay mu jël responsabilité am nag. ok 2011 mu ngi woon ci mbedd mi contre Wade. 2013 mm-hmm. ba léegi ñu bokk ci ay plateforme de lutte. barki dem ban wootee mu dem taxaw jël responsabilité am. parce que loolu mooy leader. ok. xam nga tamit dafa am ñun des fois ñun ñun acteurs politiques yi des fois dañuy bëgg aussi inverser les rôles. Mm-hmm. kenn forcé wu la nga ne leader nga. mënoon nga bokk ci askan wi citoyen lambda mais dafa am ay nit ñu proclamer seen bopp. leader mm-hmm. ñi créer ay parti ñi créer organisation ñi créer ay syndicat mm-hmm. ñi kenn ku nekk ñu ne nañ la wooyee monsieur ràññee la remarqué la. ok ci sa domaine boo munti nekk. c'est là nag qu'on attend ce leadership là. on n'attend pas que du peuple bi moom moo mun a guider boppam parce que leader c'est un guide mmh. il y a dans tout tout ci domaine yëpp am na ay guide capacité nag leader yooyu leadership boobu ak guide yooyu de rassembler les troupes fii lañ koy xaar parce que armée sénégalaise barewuñu te pourtant ñoom ñoo yor doole Sénégal hmm. kon gis nga ñiy xeexal Sénégal soxlawuñu nekk 18 millions ok c'est là où il faut faire la part des choses parce que ñoom keroog waa benn bokk yaa dañ toog assemblée naan la peuple bi de xam nañu lu xew peuple bi dañoo xam ne li ñuy def dëgg la moo tax ñu toog te xamuñu ni peuple baa ngi leen di wax war xas oh, oh. war xas peuple bi jéppi na leen mm-hmm. boo demee bay jiite nit mu jéppi la ragal la wóoluwul sax génn ci mbedd mi ndax nga faatu ba tax mu tëju ci këram war ngaa xoolaat sa bopp mm-hmm. mais dama ni loolu empêché wul les soldats de la démocratie ni mu amee les soldats yi sol tenue mm-hmm. di def maintien de l'ordre la police la gendarmerie ñu leen ci félicité parce que ñoom c'est des républicains mm-hmm. ñoom àla kulli aal ki leen di jox njiit dogal moo war a xool li mu leen di jox ñoom te buñ ko exécuté ñu xool ñu bañ ci def excès mais ñoom ils ne peuvent être que du côté du pouvoir mm-hmm. protéger ce pouvoir là parce que noonu la Sénégal tëddee noonu lañu noonu la ñu mooñee Sénégal police da ngay jàkkaarloog sa propre frère mu def maintien de l'ordre mu teg la lu metti parce que rôle ok parce que waru ko wàcc. Mhm. ndax ñi ko wàcc yëpp ñu ngi LG mbaaw. ok léegi mais mais fan fan ngeen fan ngeen jëm ñun suñu taxawaay ngeen ngeen ci taxaw. Thierno wax na ko Ababacar wax na ko Khoureyssi wax na ko. on ne peut pas réinventer la roue. gis nga fii lu fi waaye def te def ko ci union mënta def dara. Mhm. président Macky Sall nag dafa xam suñu ay suñu ay jikko suñu ay défaut mooy suñu division mooy suñu yëkkati suñu ay bopp de trop. mooy suñu bëgg a nekk ci initiative. tey Sénégal taxaw soxla. kenn ku nekk bëgg jiite plateforme. kenn ku nekk bëgg ci am rôle. bëgg ci am responsabilité fàtte ni Sénégal moo soxla. union boobu. tey wax na ko ay date jël nañ ko. am na ñu waxoon tey euh, journée noire suba y a des dates ñi ñaa ngi dégg les initiatives de partout il faut s'arrêter mhm. et s'unir les démocrates. s'ils ne s'unissent pas ils périssent. amul beneen solution non. parce que lii nekk di def bu jàllee. parce que pour l'instant aussi conférence de presse rek lañ gis ngeen di def. ah, ah aussi ah. waxi kese parce que vraiment. maintenant euh... je peux bien euh, comprendre que. boo bëggee def dara il faut nga waxtaanee ko. Mhm. mais quand même wax ju bare ji dafa am. sénégalais yi xaaruñu loolu ci ñun. Mhm. parce que askan wi tamit daf ñoo nangul. ñii nekk candidat ñu ne leen vingt askan wi da leen nangul président présidente yéen a jiite. dangay dégg sax ñu ne ne leader yi wax leen waay waaye loolu sax la. ok doo demee ba indi di xaar ngeen wax joxe moo d'ordre. Mhm. waaye wax nga ko léegi da ngay koy commencer ci sa bopp. ok boo wootee teew. Mhm. yaa ngi dégg jiite leader yi ne ci kanam. parce que nag mënu leen nekk ay leader di déglu askan wi. <laughs> mbir mi dafay tourner askan wi mooy déglu leader yi. Mhm. il faut que les gens s'unissent. fàtte seen bopp. Thierno comme ni nga ko waxee. ku nekk xam ni c'est l'intérêt général ñu arrêter les positionnements <coughs> parce que lii ñëpp dañu am syndrome ak traumatisme. parce que 2011 dafa am ñu xeexoon après ñëw euh, revendiquer xeex bi bi bi askan wi moo génnoon bi mhm. askan bi moo moo tiital Ablaye Wade mi nga xam ni moom démocrate la mu dellu ginnaaw. ok mais après dafa am ñu ñëw daal di koy moomale seen bopp. Mhm. yaa ngi ne man maa jëloon lii ñii ne maa moomoon lii. voilà l'homme du 23 ku nekk daal ci dagg sa morceau léegi nag ñu ñii ñu jox leen ci ay poste mhm. léegi nag léegi nit ñi dañu jàpp ni balaa ñuy taxawali dara mhm. il faut kenn ku nekk ñu jox la ci sa place parce que parce que nga jël ci sa wàll foofu si gis dañu gis lu am solo dañu gis ne euh, leader yi nga xamante ne daje nañ mhm. muy candidat yëpp ba ñenn ñu bokkoon ci nguur gi sax hmm, euh, ñeen ñi am nañu ko interprété sax ñu si Aly Ngouille Ndiaye gis ñeneen ak ñeneen euh, Mame Boye Diao ñenn ñi gis nañu bloc bi ngeen def pour pour taxaw mais euh, sénégalais aussi li ci constat bi ñu def mooy boo génne ci mel ni di conférence de presse daal la ñuy def euh, Macky moom mi ngi déroulé li mu bëgg a li mu bëgg a déroulé. xam nga nag bloc bi ñu def. Mhm. wala bi ñu def ñoom. Euh, man ku mel man dama jàpp ni bépp initiative bu nekk ci xeex. Mhm. dama koy saluer. ok euh, malgré que dañuy bàyyi xel bëtu sénégalais. Mhm. ndax ñi nga fi nii. li président Macky Sall def yëpp ñoo ko ci jàppale. absolument absolument loolu moo tax tamit xeex bi dafay xaw a jafe. Mm, parce que greffe bi. xam nga mm-hmm. greffe. boo mm-hmm. booy dem sa hôpital sax pour ñu greffe la benn organe. Mm-hmm. il faut mu compatible. te Sénégalais yi nag dañu sell. quand ça passe bien dañ is viennent. mais soo gisee du ñu ñëw des fois dañuy ne ñii wóoluwuñ leen. da ngay dégg sa ñu naan la ñii di wax nii de. bokkuñu ci yéen bokkuñu ci yéen. suba ñu génn dellu si Macky Sall léegi li ma leen di invité mooy. Mhm. boo demee ba sa askan gën la mature gën la mûr gën la conscient xamal ni mënatoo naxi kenn ndaxte loolu damay avertir Sénégalais yi. Mhm. bu ñu xool ci ñooñu ndax ñoom xam nañu. avant ñooñu di wax fu ñooñu jëm. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci bloc opposition bi suba bu président Macky Sall woo xaaral sax suba am na ñoo xam barki dem ba mu nee dialogue nee na ñoom dañuy dem. dialogue dañuy te sax. yow ci looy dialogue yow ku def lii ci constitution nga ne da ngay dialogue moom kenn xamatul loo loo bëgg a wax mais nañu xaar ne ñooñu dina ci am ñoo xam ne dinañ ko dem wuyu ji ci dialogue bi mhm. dina ci am ñoo xam ni bu combat commencé dinañ génnee na la no moi je suis républicain bu ñu interdire benn marche ñu ne non comme interdire nañu duñ dem du du ma dem ok euh, loolu loolu sénégalais nañ ko xamee mhm. noonu te ñu xam ne loolu warul wàññi dara ci seen motivation ak ci seen détermination parce que ay la yéwén mhm. réew moo gis dafa am jamono ay nit yuñ ciy seppi di leen tudd. ok Cheikhul Khadim daf fi nekkoon ak ay maasam ak i moroomam taxawaayam tax ñu di ko ci tudd. di ci tudd ci mhm. Seydi Malick. Mhm. Albuuri Njaay ba mu fi nekkee yeneen buur a ngi fi woon. Mhm. la joor ngoone latir yeneen buur a ngi fi woon mais seeni taxawaay moo tax tey ñu leen di cité kenn mënu leen fàtte. kon nag kenn ku nekk na nga xam. ci sa jamono. ak ci sa ak ci sa génération. sa taxawaay képp mooy tax. ñu ñu nga per nga rester dans la mémoire. Mhm. de de de l'histoire wax ji nag bare na. mais ñun comme lii tamit moom la ñu am. Mhm. pour dugg dans l'éternité parce que tey nos enfants demain sauront que tel jour Mass Mboup nii moo nekkoon taxawaayam Ababacar Mboup nii moo nekkoon taxawaayam Khoureyssi Thiam euh, Thierno Bocoum Maïmouna Bousso ak keneen ak keneen c'est ça l'histoire aussi donc est-ce que ñëpp dañu bëgg a dugg dans l'histoire mhm. ñu fàttaliku seen taxawaay wala est-ce que dañu bëgg rek. juste comme ça faire des passages éphémères. Mhm. te du ñu soppi dara foofu mooy différence bi. mais on a la possibilité quand même de changer nañ ci ñëw damay ñëw ci sëñ Babacar parce que moom euh, dafa def benn publication ne na ñëpp daje ci place euh, place de l' indépendance euh, ba wax ci yi fi sàmbeen yooyu ne ñi ñi indi gerte ak ñi indi nangam ñu toog <laughs> loolu nga gis naa ndaw ñi di ko partagé mais taxawaay bi bi war a am parce que ñu bëri jàpp nañ ne.